thank you

sociale wala boog société sinon Euh, santé environnement entre autres donc domaines moom lañu am yéen waxtaanee tey ak euh, yenn ci ay nit ñu nga xamee ne que ce son des personnes ñu am habitude donc di du jëmale ci tolluwaayu dëkk bi di tënge ci dëkku Mame Coumba Lamb euh, di ci dalal ki nga xamee ne que moom mooy góor gi Ana Boy moom kenn la ci ñi nga xam ne ñoom la ñu war a waxtaanee waxtaana jëmale ci li nga xam ne moo aju ci wàllum santé donc à plus précisément li nga xam ne moom mooy structure de santé bi ñu tuddee donc hôpital Youssou Mbargane Diop salaamaaleykum maaleykum salaam Pathé maaleykum salaam As. di nuyu waa département Tëngéej téléspectateurs yi ak ñuy suivre si plateforme digitale yi. di gërëm Ndanane TV bi ñu dalal fii tey man ak As pour ñu ñëw wax si jamono émission bi. te dafa méngoo ñun ni ñuy bëgg a dox. lu jëm si santé. muy phénomène société bi. ñu taxawal société bi ñu gërëm li ngeen ñu recevoir permettre ñu waxaax waa département bi. super. d'accord ñu bàyyi waal xel un peu euh, euh, caméra bi donc mën a waxtaan As maa ngi lay bu baax a baax. naa la bu baax ça se comment. donc euh, maa ngi nuyu ñëpp di nuyu téléspectateurs et téléspectatrices sur Kër Ndanane TV donc di rafet rafetlu dalal bi ñu dalal fii tey ñu waxtaanee li nga xamante ni moo jëm santé plus précisément hôpital Youssou Mbargane mi nga xamante nii moo nekk suñu dëkk am ay difficulté yu bëri yu fa d' accord alors je pense que fi mu daanelee donc euh, euh, neex na ma trop moom mooy am ay difficultés yu bëri yoo xam ne rek am na fa mais balaa ñu dugg si difficultés yi donc déjà une question ki boo xam ne dama leen koy départager si ñaar euh, gi Ana booy on parle de Youssou Mbargane kañ nga gëj a teg sa kañ nga gëj a teg sa tànk Youssou Mbargane. ma fi gëjee teg sama tànk benn activité benn activité de nettoiement ak de don. Mm-hmm. ça peut faire combien de temps une année six mois. deux ans ça doit faire deux ans sinon dama fay romb nga gëj dem Sumbargaan. Sumbargaan gëj naa fa dem ba sama benn copain. Mhm. jabaram amee doom. ça fait combien de temps. ça man à peine huit mois. huit mois mhm. donc bu ñu bu ñu déggee déjà périodisation automatiquement dañuy xam ne que maanaam oh, gëj nañ fa on a envie de parler de la structure mais sama problème mooy yéen li ngeen bëgg wax ci structure yu Sumbargaan yëpp. kii huit mois kii presque deux ans demul Youssou Mbargane est-ce que c'est pas déjà euh, euh, une erreur déjà de votre part cest à boo amee pour wax ci mbir kañ day fekk nga maîtriser mbir moom noonu mais depuis boobu ak léegi demoo leen Youssou Mbargane bëgg a wax Youssou Mbargane non man ah. du da ngay juum ah, parce que parce que tey jii mm-hmm. Youssou Mbargane mën naa ne jàkkonte naa fa ba ma fa demee ay difficultés yoo xamante nii tax na amatuma fa envie dugg mm-hmm. deuxièmement jaratul léegi ñuy dem ba France pour xam ni Macron moo gagné élection yi mm-hmm. donc euh, à travers euh, les informations ñu fay liggéeyee le net et tout mën nañ xam problème yi nga xamante ni moo moo am. loolu loolu loolu loolu seen est de bu dee à travers le net ak li nit ñi di wax loolu c' est c' est pas quelque chose boo xamee ne que lu ñu lu ñu lu lu plausible <laughs> mon cher ami. waaw non mais mën nañ fa gëj mais dara mën nañu fa bañ a ëmb. Hmm. parce ñun ay citoyens lañ. nous sommes engagés am nañ ay mbokk. am ñu ñu fay recommander ñu fay dem am ay. dëkkandoo ay am di jàmm yu fay liggéey yu fa nekk chaque jour di ñuy wax li fa am ñun tamit umpalewuñu li fa xam exactement parce que booy nekkee si si si dëkk mhm. bokk si dëkk bi di xeexal mhm. euh, société bi mhm. lu taxaw taxawaayu koo xam ne day porter plaidoirie dara warula ump même boo fa dul teg sa tànk sax di nga am les retours feedback sur qui se passe quant à la l'organisation et développement structure bi. depuis deux ans nga gëj fa góor gi ànd booy depuis deux ans nga gëj ci Soumargane est-ce que présentement alors c'est comparable deux ans ci ginnaaw ak présentement maanaam entre deux mille vingt deux mille vingt deux euh, en fait ñun dem nañ fa. ñu waxtaan ak le directeur waxtaan ak le responsable du personnel mais maanaam budul dara. à l'entrée bu ñun bu ñu daan yegg si foofu noonu gis nga ay boutiques yu daan nekk mm. foofu jaaykatu yàpp ak lu nekk nga daan gis si bunt bi mais présentement au moins am na avancé boo xam ne que di nga leen ko nangul ne que ils ont essayé de faire un effort au moins. ñun ne dara doxu fa waxuñu ne dara baaxu bi man gis naa ko koy waxee teg naa ci mm-hmm. accessibilité bi mm-hmm. façade bi mm-hmm. baax na amatul occupation anarchique nettoyé nañ ko peinture nañ ko mais te tamit organisation interne bi. mu ngi dox parce que directeur bi à son son organisation de service yëpp mu ngi dox mais parfois suñu problème structure sanitaire yi man la c'est l'entretien matériel bi matériel existant bi mm-hmm. ak euh, suivi bi mm-hmm. y aussi la formation bi personnel ñu ah, wala ñu am tamit personnel bi ñu soxla ah, personnel qualifié bi si war a am mm-hmm. tamit yooyu yëpp xam nañ am nañ les informations qu'il li liñ si tax ñu dog nag du ne pour critiquer ou décrier wala pour mais pour améliorer ce qui l'existant ak l'acquis mm-hmm. parce que am na organisation boo xam ne macha allah ak le directeur ñu koy def mm-hmm. ak le chef ki yor district sanitaire bu Rufisque yëpp le médecin chef Thiam mm-hmm. xam nañ ni muy liggéeyee ak l'hôpital parce que c'est lui qui le garant de tout ce qui est système sanitaire à Rufisque ci département bi kon nag umpalewuñu xam nañ ni mu demee mais tamit ñun tamit li tax ñu jóg C'est pour améliorer. pour améliorer. améliorer. Important, le terme am, am, am, améliorer. Donc déjà, euh, euh bu fekkee vous faites que déjà, euh, fi euh, Gorgi en Daniel tout à l'heure, moi, améliorer. Améliorer. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que l'on entend par améliorer C'est-à-dire, nous devons comprendre qu'il a accepté au moins il y a des avancées portant sur organisation, portant ci embellissement, mais qu'est-ce que l'on attend de, de, de, de, de, de, de, de, de, donc man ci côté boobu li ma ciy wax dans un premier temps mooy am na ay avancées notoires yu kan moo ko fa def est-ce que liggéeyam la est que kooku moo ko waroon def est-ce que ñu waroon a taxawu hôpital ñu ngi taxawu hôpital loolu moo ko solo paate parce que su ma juumul euh, façade bi ñu tag ju ñu aw si fas si biir peut-être su ma nee gëj naa mooy gëj naa dugg ba si biir mais maa ngi dem ñu sumbargaan maa ngi xam li xew si bunt bi ainsi de suite de suite mais ñan ñoo fa def waaye phase de su ma juumul mm-hmm. doo Ageroute. ñoom ñoo leen defaral li nga xamante nii moo nekk foofu. tabaxal leen façade bi dafa leen embellissement bi et tout. mais ñoo war a def loolu ci hôpital bi. est ce que a liggéey pour hôpital ñu ngi def seen rôle. loolu c' yoo xamante nii c' est c' est c' est à répondre donc beneen bi ma ci wax mooy man ba ma fa mujjee sincèrement dama découragé sama benn copain la jabaram am doom ma dem di ko seeti si hôpital ma dem ñu ne ma li ma njëkk a mooy daa ñëw mu ne ma booy dañ ne ma da ngay jënd yére pour bébé bi parce que boo jëndul yére ñoom da ngay dem uti yére. waaw mais lu ci seen yoon nag as. donc lu ci seen yoon ci yére bi. waaw dëgg la maanaam mais dafa am lu am importance mooy lan war nañ am ay ay ay ay ay ay ay euh, comment dire ay politique sociale lañ teg yoo xamante ni nii. nit ki ah, tey bu ñëwee saa à dire demal demal jënd yére pour bébé ban chance fois moo naan dama nga jënd yére pour bébé c'est-à-dire on se pose cette question. quel quel ban rapport la am ak seen. du demal jënd yére sax fekkoon demal jënd yére day gën a neex mais ñoom am nañ euh, les habits. mais dañ naan pour xale bi mën ko procurer yow foog nga jënd ko. beneen bi mooy papa ji amul fu mu fanaan il est obligé mu dem uti ab musikeeram ak ak nu mu bëree yoo xam nga yow Youssou Mbarane nu mu bëree yoo takk ko si biti si biti si baa ñuy toog pour mën a tëdd foofu xaar doo jabaram génn mën a que hôpital bi am na obligation alors. Euh, créer foo xamee ne fa la patient yi di fanaan. no pas fa la patient les mais mais au moins. mais au moins accompagnants yi war nañ leen mën a teg foo xamante ne nii. mais dina dina dina dina dina baax parce que tey jii. bu fekkee yow da ngaa jël si malade dem fa yóbbaale malade sa kër mais loolu jaratul ngay dem si hôpital bi. waaw ah, en fait c' est relatif ah léegi dama c' est c' est relatif parce que aussi hôpital boo xamee c' est à dire Sénégal est que toll nañ niveau boo xamee ne que à fois ñuy créer donc euh, maanaam ay euh, euh, barab yu normal yu mucc ayib pour pour malade yi. defal ko aussi pour les les les accompagnants loolu moom gisaguma ko en tout cas au Sénégal léegi bu fekkee ñun on va exiger ça sax loolu maa ngi doog a dégg ci as ni léegi dama bëgg ñu ñëw ci beneen moom mooy euh, déjà lu aju ci li nga xam ne moom mooy wàllum entretien ak euh, matériel bi nga xam ne moom lañu moom lañu yittewoo donc au niveau de cette structure de santé on y va directement moom mooy euh, am na benn groupe bu nga xamee ne que vous en faites partie vous avez dit que l'essentiel ou bien ce que vous souhaitez moom mooy alors organiser une manifestation maanaam marche wala sitting pour ñu relever plateau technique bi su ma ko mënee waxee noonu pour aussi donc ñu am pour gën a euh, yeesalaat maanaam doxalin bi ci biir hôpital bi euh, lan mooy li motiver loolu déjà kan moo ci mën a ñëw ci loolu. voilà donc bu fekkee góor gi daanaka booy mel donc ma ñëw si donc parce que gis nañ léegi ne Sénégal réseaux sociaux dafa am solo mm-hmm. parce que lu am njariñ la. gaa fekkee am na ñoom dañ koy utiliser à d'autres fins pour nuire mais am na ay jeunes yoo xamante dañ koy utiliser pour améliorer seen cadre de vie pour participer ci développement seen dëkk ci kaw loolu lañ gis à travers la net wax sax laa ci Rufisque gars yi di questionné wu ci ci ci Youssou Mbargane li fa am li fa am li fa am li gën incité mooy euh, le cas de Astou Sokhna mi nga xamante ni moo am au niveau de de Louga donc incité ko incité gars yi ku wax man jëmoon naa Youssou Mbargane lii laa fa jànkoon lii ne ñu war a xalaat ñu am benn group boo xamante dañuy xalaat relever relever le plateau médical nga xamante ni moo rajo gis naa nga def ci reportage merci ci visite bi nga defoon ñu ne rajo am na rajo am na fa mais rajo bi mu war a jël cinquante personnes par jour mais rajo bi ngi jël cent cinquante personnes par jour xam nga ni xam nga ni kon loolu matul loolu matlewul pour hôpital bi hôpital bi maanaam offre bi dafa dafa dafa dafa inférieur ak demande bi kon donc yu mel noonu moo tax a jóg ñun suñu kuréel ba ñu bëgg a def une marche pacifique def ci plaidoyer wax manquement yi nga xamante ni moom lañ noté au niveau de l'hôpital Youssou Margane teg ay solution nag pour hôpital bi gën a gën a wu de niveau ñu mën a pour autorité mën na mën ñoo jàppale si loolu quoi parce que dañuy seetlu ne état central daf ñu xaw a daf ñu daf ñu xaw a daf ñu xaw a délaissé quoi te Tëngéej nekk na une ville historique nekk na ville boo xamante ni nii actuellement mënoo wax quatre villes si si njëkk si si si Sénégal te doo nekk ci nekk ci région Dakar nekk ci ci ville bi hôpital Youssou Margane donc pourquoi pas ñun hôpital Marga mënul nekk comme dalal jàmm par exemple. c'est bien pour dëggal li mu wax rek. initiative yi ñu ngi ko euh, xalaate toggee ko si réseau yi. pour joxe wone opportunité ak. Euh, njariñ bi réseau sociaux yi am. mais vrai que du ñu am temps tout le temps di toog. Mm-hmm. def des réunions physiques wala gisante. Mm-hmm. l'initiative foofu la jógee. des amis comme dafa Niang mm-hmm. Pape Diouf. depuis plus de deux ans. mais man Pape Diouf laa bëgg Pape Diouf mais mais mais Pape Diouf góor nga Pape Diouf c'est-à-dire dafa jot ñu bàyyi di làq suñu ay clavier di wax ay wax. di bind ay kii ça c'est bon de faire di nekk ay ay lance non non c'est pas encore un bon citoyen Pape Diouf pourquoi muy nekk un bon citoyen koo xam ne mosoo wàcc ci terrain su dee mës na wàcc terrain ah xaar xaar Pape Diouf seen xarit la mais may leen ma wax ko dëgg tuuti sama xarit la ah, non non non mais may leen <laughs> non may leen ma wax ko dëgg tuuti maanaam le ce qu'on souhaite mooy Pape Diouf au delà du fait que mu nekk ci lan mooy mosoo leen gisante ba pare ah, ba pare mais grand pourquoi léegi la moo tax non la moo tax nga dans dans dans la citoyenneté il est dans le social mais mosuñu ko gis dans dans l'action su fekkee mës na am mais amul problème mën nañ mën nañu ko génne ah, waaw waaw d'accord na léegi na bàyyi ah, na bàyyi di làkkatu ci clavier yi di ah, bind ñu koy tuddee ay lanceur d'alerte ak yooyu loolu non mais na na génn parce que chacun à sa manière non non mais mais mais ñu wax <laughs> mais chacun chacun à sa manière de faire sa politique peut-être moom lu mu mën mooy nekk ci ginnaaw ginnaaw clavier am di dénoncer tant li ma neex si moom mooy ma xamee ba léegi dafa dafa dafa dafa constant sérieusement man musuma ko gis à travers si mais day li muy dénoncer da jox ay ay du ñu wax du waxantu da lay wax loo xamante ni da nga ciy teg sa baaraam waaw ah, d' mais na wàcc mais na wàcc terrain bu dee dëgg la si moom. wax yow mën na trop yàgg na ko wax man mii man gi Yacine Boye góor d' accord léegi léegi léegi ñu dem ci. mais ak ñoom mel ni As ak beaucoup de jeunes yu Rufisque loolu laay rafetlu ñu regroupé wu à partir de. Mhm. des réseaux mhm. ñu taxaw lu concret pour mhm. porter la plaidoirie de Youssou Mbargane première kii bi action bi c' est la marche pacifique bi ñu bëgg a def le 14. xam ne rond point Santhiaba lañ koy commencé jëm Youssou Mbargane marché bi objectif bi c' est pour doter de Rufisque d'une rajo d'une radio fonctionnelle am nañ rajo mais tout temps day paan scanner day paan mhm. ñu koy réparé ji yàgg na sonn na te ngay département mosul am scanner pour nga def scanner il faut nga dem hôpital des enfants de jam Diamniadio wala Pikine ah, alors que pôle on quand on parle de développement pôle urbain de Diamniadio on a mi beaucoup d'investissement est-ce que c'est la priorité c'est la santé pour Rufisque département boo xam ne fi nekk macha allah essor démographique bi population bi doit disposer d'un hôpital multifonctionnel de niveau relevé. mais xam nga li li li nga xamee ne. <laughs> waaw maanaam ma daaneel. de niveau lool la ñu laaj. loolu la ñu ñaan ñu am scanner ak rajo pour marché bi. Mhm. mais nag en tout ça ñu plaidoyer pour relever niveau bi. mais nag ci kaw organisation. Mhm. système de sanitaire Sénégal. ñun ñu porter plaidoyer ba nga xam ne ñun dinañ joge centre santé hospitalier dem. centre de santé niveau relevé xam niveau deux la ou trois. Mhm. ça c'est possible. d' accord mais mais Youssou Mbargane di nekkul centre de santé de hôpital la. léegi benn waaw d' accord c'est un dama bëggoon juste ñu ñëw ci benn affaire cest dire est-ce que yéen vous n'êtes pas allé trop vite en besogne. waaw <laughs> ah, mais tey yéen bu da ngeen bëgg a une bataille bu nga xamee ne que maanaam vous n'avez même pas essayé de faire le pas. ci autorité yi nga xam ne ñoom ñoo ngànk structure bi non attends rek euh, euh, grand xaaral rek. man li ma non non non nekk non non nekk relais communautaire. c'est-à-dire mën nga nekk relais communautaire mën nga non non xaar non non non dafa nànk rek dafa nànk rek li may wax à dire tey jii mënoo nga ne bëgg a entamer plaidoirie wala une bataille te yow xamuloo les tenants et les aboutissants non xaaral ma ñëw tey jii déjà li nga fi jot a wax nii as il a parlé de Yooyu Bari su Mbargane yéen est-ce que mës ngeen dem Youssou Mbargane gis ak le directeur gisee le responsable du chef personnel euh, le responsable ou bien le chef personnel. waaw dafa laaj non bañ a fekk. <laughs> pourquoi loolu fa fekk non attends non non non mais au moins mais au non non non xaar xaar ma daan xaar ma daan xaar ma daan au moins au moins nga dem essayer. mais bul le directeur il est toujours là-bas. comprendre benn ñaareel bi moom mooy même bu fa même bu fa moom moom même su fa nekkul sax y a au moins une personne ku mel ni membre responsable personnel ngeen dem exactement ngeen xool. quel est le problème problème mu rajo yi ngeen wax lan mooy problème bi luy parce que tey il a parlé bu ngeen seetaanee vidéo bi nee am na lu tolloog ñaari rajo benn mobile benn fixe. Mm-hmm. mobile bi moom cinquante clichés la mën a def par jour te parfois ci intervalle benn suba sax mën na ci am benn malade mën na ñëw ñu defal la cinq wala dix clichés te mobile boobu dafay jël lu to dafay jël dafay tiré ba deux cent deux cent clichés ce qui n'est pas normal ça am plusieurs boo xam daf ci lakk. léegi léegi ñu ngi nekkoon ci lu aju ci euh, euh, maanaam euh, as est-ce que balaa ngeen di entamer ay les luttes radicales moom mooy lu aju ci wàllu ay sitting ay marche ak yu yu demee noonu est-ce que vous avez essayé au moins de faire le pas ci ñi ŋànk structure sanitaire boobu di Sumbargane pour waxtaan ak ñoom ñu xool en fait est-ce que loolu loolu foofu ngeen doon njëkkee. mon cher c'est que c'est que yow Pathé su ma la déggee ngay jël défense hôpital Youssou Mbargane xaw ma nag xaw ma nag ci ma ci lan nga nekk xaw ma ci lan nga nekk ba war a mën a ba war a ba mais mais mais mu tuddi non ba ba ba mais mais moo mais xaw ma <laughs> ci lan nga nekk ba war a mën a défendre défendre hôpital hôpital Youssou Mbargane mais mais ma ñëwoon ni la dama lay wax ni wu wuñu benn étape fan ngeen tàmbalee balaa ngeen wax waxu waxu marche ak ak ak su ma déggee ngay wax est-ce que parce boo taxawee tey nga xam problème am hôpital Youssou Mbargane di waxee nii dama naan yow pare woo pour ñu poser une question voilà léegi li ma may ma fi may ñëw ah. hôpital Youssou Mbargane xam nañu fa am maanaam tey jii boo gisoon vitre bii toj nga gis que nii jarul ngay xaar boroom kër gi ñëw pour laaj est-ce que bi dafa toj mais du non attends mais nga dem ne ko maanaam séparation vitre c'est une question c'est-à-dire pas man parce que c'est des problèmes qu'on qu'on a vécu dans l'hôpital ah, comprendre nga c'est-à-dire jarul may xaar. mais mais dama toog hôpital bi depuis ah, huit mois bi nga mujjee dem da nga demoon pour seeti sa sa xarit. pas plus tard pas pas plus tard qu'avant-hier pas plus tard quavant nit ñëw na ci man ne ma sama sama sama sama benn mag. doomam dee na hôpital yu Soumargane fan yee passé lan moo ko rey. Ah, manque ah, d'assistance billaahi wallaahi taalaahi mais yàlla moo yor bakkan yàlla moo yor bakkan waaw dëgg moom la dee na fa parce que lan may ma ñëw est may ma ñëw nag moo da maa posé question nag may ma répondre ah, voilà c'est-à-dire moom nee na ma sama doomu mag daf jabaram morom accouché après doom ji mu nekk morne parce que manque d' assistance la parce que jëluñu matukaay ci waa. pour assister ko ah c' est extrêmement grave. ça dafa teel dafa dafa c' est à dire c' est un problème xoolal barki dem moo nekkoon journée mondiale des sages femmes. ça tu es en train d' parce que tout simplement. te am na fi récemment c'est-à-dire li nga wax parce que day dafa nekk loo xamante ni. ñu koy ñu nit nee na ma. je répète et je ah. réitère mes mots. nit nee na ma sama benn grand. jabaram moo doon au niveau de l'hôpital Youssou Margane Diop manque par manque d' assistance moom parce que moom loolu la ko tuddee manque d' assistance négligence mais doom ji dafa génn àdduna mu ne moom ba mu déggee mu ne moom ba mu déggee may ma rek ma ñëw beneen bi man sama sama sama sama copain bu may àndal bu ñu daan toogandoo chaque weekend dafa dee ci moto moto la doon dawal travi rentré ko xam nga lan moo ko rey toog na une heure trente minutes si tali bi parce que amul amul amul ambulance bu ko jël si loolu si loolu yoon Youssou Mbaye loolu si lan yan ngeen def pour gisee directeur hôpital bi wala le responsable du personnel ñu wax leen ñoom parce que tamit tubaab dafa wax ne tout ce qui se fait pour moi sans moi xaw ma noonu lañ koy waxee si attaque mais mais mais as ah, puisque mënoo tontu si loolu. non non non yaay <laughs> wiri wiri ba léegi kañ. ba relever plateau médical bi. soxlawul ñuy toog ak le directeur. pourquoi pas parce que xam nga. mais le ministère le ministère balaa muy def dara ci structure bi il va son son principal interlocuteur c' est le directeur de l'hôpital ah, ah soyons cohérents waay bàyyi directeur euh, ñëw puisque mënoo tontu ci loolu. parce que da ngay bañ ma tontu non dama mënul tontu ci loolu bàyyi ah, bàyyi góor gi bon euh, démarche yi ngay wax c' est des démarches qu'on a prévues nécessairement sax certainement. que vous avez prévu ça non amagul à à mon niveau d' am nañ ñu ko waroon a dox. te wóor na mu ne dox nañ ko. dox nañ ko sax parce que leen gis na on avait ah, man le coordinateur Tafa Niang le coordinateur Tafa Niang waaw moom laa yor mais ah. xamante ni moo nekk actuellement. depuis cinq minutes yaa ngi ci loolu te waxoo ci lu comme ni mu ko waxee coordinateur ak ñi nga xam ne ñoo gën a woyof tànk. waroon a dem si autorité yi ngay wax mhm. def nañ démarche nécessaire parce que ñun duñ toog rek def marche mhm. parce que marche pour nga def ko il faut que tu nga am autorisation nga quitte les autorités préfectorales ak yooyu mhm. le médecin chef bi nga xam ne moom moo géré district sanitaire moom moo géré tout ce qui est santé à Rufisque si département envisagé woon nañ gis te certainement gars yi gis nañ ko mais plaidoirie c'est pas parce que ñun dañu war a gis ñooñu rek pour war ko mën a euh, marche bi c'est tout juste pour doter de Rufisque pour le moment d'un scanner et d'une radio kon ki nga xam ne ne yow moom mu ngi lay ñëw di indi si matériel mën na doon mën na ko jënd si de jarul ñu toog a bu xam ne euh, hôpital bi maa ngi rafet jarul ñu toog a bu xam ne hôpital dafa salté jarul ñu toog a directeur xam ne hôpital bi y a des manquements pas on a des comptes rendus suñu suñu suñu suñu suñu xeex bi ñuy xeex du loo xamante ni am nañ rapport bu bëri. mais pourquoi pas. non parce que ñun li ñuy xeex imagine toi léegi ma ma ma. je non pour te donner une bonne information la démarche. a été approuvé par les autorités sanitaires de Rufisque. Mhm. non non non attends non non góor góor ñoom sax dañu naan lii loo leen war a def non non mais méthode bi méthode bi ngeen koy defee. moo ban méthode lañ ko defee ban méthode. c'est-à-dire ban méthode non écoute nañu wax ban méthode lañ koy defee. waaw nañ dégloonte nañ dégloonte. waaw lépp loo gis rek c'est pas parfait dans l'organisation ak si euh, démarche yi mën na am des rëq si démarche yi. on peut procédure moom procédure moom. on peut on peut améliorer à tout moment. procédure moom boo ko jaaralee fi mu war a jaar rek. gars yi buñ dinañ gis au moins 80 pour cent de perfection mais tey c'est-à-dire mënoo wax ne da ngay xeex parce que li ngeen wax yu sumargaan ñi fay liggéey la gën a miti yoo yi fa nekk waaw dafa nàkk man bi ma demee je salue je salue au passage non xaar ma wax la je salue au passage Madioba Madioba Seck alors c'est une personne très ouverte boo xam ne bi ma demee daf ma ubbil ay buntam déglu ma wax la ñu def waaw non mais c'est-à-dire c'est-à-dire bi ngeen ci tax bi ngeen ci taxawee ba léegi ah, ah. maanaam je suis désolé mais mais waxu leen fi lenn loo xamee ne convaincre na Sénégalais bi jouru mars bi mu ñëw ah soutenir leen lu parce que vous n'avez pas allé vers l'information je je vous donne des waa léegi je vous donne des informations déglu leen dama leen jox information problème mu rajo yi nga xamee ne moom moo nekk coow li alors ils nous on fait comprendre je pense que vidéo bi c'est mu ngi ci chaîne YouTube bu bu kër bu kër Ndaanaan qu'est-ce qu'ils nous ont fait comprendre que ne alors lancé nañ appel d'offre bi depuis deux semaines ci ginnaaw maanaam deuxième wala troisième vendredi ci weeru corps bi lañ def réunion ak le corps médical personnel en tout cas ñi di gérer euh, hôpital bi ba jàpp ne que maanaam le ministère de la santé ils leur ont fait une dotation de deux cent millions loo xam ne que dañ koy dugal ci maanaam investissement matériel principalement wala principalement lu aju ci wàllum rajo bi moom la ñuy am pour kii donc loolu lancé nañ alors euh, euh, euh, appel d'offre bi ki nga xamee ne que moom mooy koy gagné incha allah le 19 bii ñu dëgmal lañ koy xam te bu ñu toogee aussi war nañ amaat jeneen un mois yoo xam ne dañuy xool ba xam doom ay recours comprend nga donc loolu procédure la boo xam ça prendra au moins quelque trois mois quatre mois à peine non déglu déglu ma ñëw trois mois quatre mois donc c'est une information que je donne vous avez envie de faire une lutte mais malheureusement vous pas les bonnes informations war na mën a nekk au lieu am pour di engager ay luttes yu radicales parce que je vais vous dire je sais pas est-ce que déposer ngeen seen parce que le 14 soriwul moom ngeen am intention def c'est dans une semaine le 14 est-ce que c'est toujours confirmé que moom ngeen am def marché bien est-ce que déposer nañ donc la déclaration au niveau de la préfecture d'accord on a déposé déjà donc la déclaration au niveau, de la préfecture amaguñu alors retour amaguñu retour pour euh, venant du préfet amaguñu on espère que puisque c'est une marche pacifique des jeunes d'accord ok même su suñ autorisé ak suñ ko autorisé wul yëpp c'est-à-dire y a ces autorités yoo xam ne ñu ngi au niveau de Rufisque de grâce fii parenthèse bu ñu def lii récupération politique c'est-à-dire qu'on n'accepte ah, pas waaw ñëwal ah moom nag politicien la moom déjà c'est-à-dire xamul tax mënul nekk rek situation politique nekk affaire boo xam ne mais ba tey ñu ngi gis ay nit ñoo xam ne déjà dara xewagul ñu ñëw taxase buntu Youssou Mbargane bind seen nga xam nga c'est c'est c'est des àndandoo bokk même décision yi ñëpp mënuñu àndandoo di xeexandoo même chose ak la même na ay ku nekk am nga parti politique boo nekk am nga ambition politique mais li ñuy xeex ni mënul nekk politique parce que c' est yoo xamante ni c' est des choses donc dañ koy defar ngir ngir ngir ngir suñu dëkk politique mun ñu see dugal politique parce que loolu day defee ignoble quoi en quelque sorte. beneen ma la wax mooy ñun dañoo smart si di oo politiciens yi di oo di oo les maires te duñ te te duñu faale. démb damay da ngay toog un moom il n' est pas un homme politique mu wax la ba mu ne ma dans douze mois man ma relevé hôpital bi niveau nga ne ko comment. te oo nañu. mu budgétiser la ko ne la pour 500 millions. dañ koy relever niveau 4 nan lañ koy defee. yàgg na fa def ay déglu leen mu ne nan lañ koy defee état dinañ ko ko mais bu ñu uyisee baax uyisul baax xam na la ñuy def y' a 1 million d'élèves au niveau fii nii 1 million d'élèves chaque élève bu participer 5 donc déjà euh, euh, waxtaan bi am na solo on a essayé véritablement donc ñu am pour euh, laal yenn ci ay domaines yoo xamee ne que certainement vous attendez à ce que ñu ñu ñu ñu soulever ko ci biir waxtaan bi malheureusement donc le temps qui nous était donc réservé donc tire à sa fin c'est épuisé certainement donc ma ñu ñu koy signaler tout ni l'heure léegi daal li ñu mën a jàpp moom mooy am nañ yéene def marche incha allahu donc pour le compte donc de l'hôpital du Soumargane pour que mbir yi gën a jàppandi euh, le 14 bii di ñëw nii am nañ yaakaar ne que donc autorité yi dañ ko nañ ko dinañ ñu ko nangul bu ko defee donc ñu dem def ko comme ni nga xam ne moom mooy ni ko ni ko bëgg woon góor gi euh, présentement boo doon tàggatoo le mot la fin par rapport à cette émission. mot de la fin xanaa gërëm Ndaanaan TV kër Ndaanaan la télévision de l'élève dalal pour ñu wax mm-hmm. population bi ñu ñëw assister massivement à la marche du 14. ñëpp ñëpp nañu ñëw. parce que euh, rond point Santhiaba Youssou Mbargane directement ñu def foofu jël mémorandum bi jox ko les autorités. te li ñuy def nii c' pour tout le monde on on on parle au nom. de des agents de Youssou Mbargane à partir du directeur bi ak ñëpp mhm. responsable sanitaire yi au nom de la population plaidoyer pour leur doter de scanners et de de radio mhm. te bu ñu si am na yeneen projets yoo xam ne c'est des projets de développement pour société bi mhm. dinañ si gën a waxtaan pare beneen nga tàggatoo par rapport ak waxtaan bi donc euh, di rafetlu jotaay bi di di di la nuyu aussi yow nga xamante ni yaa daal biir Kër Ndanane TV. Mhm, donc di nuyu sama naataangoo bi ma nekk doon góor gi Anna Boy. Mhm. donc di wax ni ñu ngi def appel ci jeunes yi ñu ñëw massivement participer ci li nga xamante ni moom la ñuy def. Mhm. defaluñ ko pour kenn pour ñu ko defal pour suñu bopp d' abord. parce que suñuy parents ñoo fay fajoo suñuy rakk ainsi de suite donc ñëpp ñëw ñu àndandoo xeexuñu dem marche ñu pour xeex marche ñu pour saaga marche ñu wax manquement yi nga xamante nii moo am hôpital Youssou Mbargane ñaan ci ñu indil ñu si ay ndimbal ba loolu ba loolu saafara bu baax. d'accord bon euh, je pense que l'essentiel a été dit donc di am mbégte contentement donc doon leen ci dalal góor gi Anna Boye ak As Malick Gueye ah Guèye Ndioro bëgg ceeb donc ñoom lañ fi dalaloon tey pour waxtaan ci li nga xam ne moom moo aju ci wàllum euh, wàllum santé ci département de Rufisque principalement donc hôpital su Mbargane ak marché bi nga xam ne moom la ñu def donc c' était sur euh, Kër Ndanane TV dans votre émission jamono salaamaaleykum.